heures ci télévision euh, Futur Média mbokk salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës euh, te ñu nam ko jukki dina bokk ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàpp leen ni ki démb benn doomi aadama euh, moom moo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu ñeent fukk ak juróom ci ay cas positif la ñu def ginnaaw boobe la am ginnaaw boobee nag junni ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay test la ñu def daañu waxtaane lépp lu ñeel nag càmmkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca kër Ndiayloo te commune bu Mbambilor jamono yi nag tiit lool uh, ci seen ak ëllëg la def ndax itam li ko waral moom moo di sit bu nga xam ne uh, nekk nañ fa ci lu tollook uh, ñeent juróom-benn fukki at wala boog fanweeri at nag lañ leen ne daañ leen fa jëlee ba tax itam ñuy sàkku ndimbalu ko autorité administrative yi ak itam locale yi mbokk yi ci la jotaayu xibaar daañu dalal gan gi di Ibrahima Serge Malou xam ngeen ne moom mooy directeur bu financement ak itam partenariat bu ministère agriculture ak itam équipement rural daañu waxtaanee euh, pàcc wu am solo ñel wàllu euh, mbay mi ak itam li nga xam ne euh, moom moo di xëyub ndaw ñi di ngeen dégg kàddu yi nga xam ne dina ko yëkkati ci yile jotaayu xibaar daañu wax ci leneen koor gi xam ngeen ne mbokk yi saa yu ñëwee ñeent bëri na ci ay ndaw yoo xamante ni dañuy faral di amal ay ndogu ci li nga xam ne rek moom moo di xal wi ngir jox ko ñi nga xam ne heure ndogu da leen di fekk ci li nga xam ne rek moom moo di yoon wi suñu ay ndaw dem nañu fu mel ni université ca Hann belleer air xool eh, jëf ju baax joojee nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy def mbokk yi lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci euh, gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi nañu ko junjee woon jàngoro yi mbas mi Covid 19 niki démb benn doomi aadama euh, moom moo daal di toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci euh, jot dëddu ñeent fukk ak juróom ci ay cas positif la ñu am ginnaaw bi nag junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett fukk ci ay test nag lañu def fanweer ak ñaar ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ñeent fukk ak juróom-ñett eh, ci aji tawat nag eh, jàpp leen ne jamono yi nag eh, daal dinañuy wér waaye itam fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo nekk ca réanimation mu di ay cas grave leneen loo xamante ni mbokk yi maa ngi leen ko doon junjoo di rek càmmkat ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Kër Ndiaylo commune bu euh, Mambilor ñoom ñooy nag tiit lool euh, ci seenak ak ëllëg la ñu def ndax itam sit wa nga xam ne nekk nañ fa ci lu tollook fanweeri at lañ ne rek nañ fa daal di euh, jóge ba tax itam jamono yi ñuy sàkku ndimbalug ñi nga xam ne nag ay autorité administrative lañ ak itam local ca wowle diwaan Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb ci reportage ñett ci la jiitu réew ma fi nekkoon di Abdou Diouf joxoon leen bërëb boobu nga xam ne ca hectare yu bëri la toll te nekk ca kër Njaay Lo sàmmkat yooyu nag tey jii seen toogaay neexatul dara ab promoteur moo ñëw ngir bëgg leen faa jëlee ñu dajaloo ci bërëb bi nga xam ne moo waral coow li ñoom ñu ne ñoo lànk duñu fa jógee. dañoo demi la ñun suñu kayit la ñu am depuis 1987 CNCR bu Mbambilor la ñu ko amee woon kenn mënuñu fi xañ fii fii la nekk. ñun dañu dañoo mën a yóbbu nag yi kaw asamaan si wala suñu kaw bâtiment yi fii lañ nekk fii lañu dëkk si réew mi fii lañu am suñu ñi nga gis fii yëpp fii lañ juddoo ngir bañ nag ay laale daal di fay am ñoom ñi leen nag ñuy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ak maire bu commune bu Bambilor ñu daal di ciy wax. kii dañu am fu ñu dugg ñi fi dëkk yi dañu am fu ñu dugg parce que ay citoyens sénégalais lañ maa ngi arrêté ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yi nekk ci département bi yëpp mu commencé ko ci monsieur le maire Ndiagne Diop lii bu ma ko seetaan waaye maa ngi wax ne sous préfet bu Rufisque euh, bi nga xam ne mooy sous préfecture bu Mbambilor na ñëw jàppa ci ki nga xam ne mooy Serigne Babacar kan préfet bu Tingéej ak service élevage ak ñi nga xam ne ñoo fi yor service bi yëpp wàllu yi nekk ci wàllu administratif nañ ñëw jàppa li waaye may lancer appel ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk ci ko surtout ki ñuy wax président de la République Macky Sall. laneen loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu mooy toj gi nga xam ne nag waa des Descos dañuy faral di ko toj yenn bërëb yi nga xam ne dañu ko fay tabax ngir mën koo jariñoo mbokk mbokk yi jafe-jafe yi nga xam ne nag euh, poste mi ngi koy euh, dund xam ngeen ne boobu ak léegi ñu ngi koy jukki ci li euh, jotaayu xibaar waaye nag mu mel ni lu ni mel li ko wund moom moo di yorin wa du samay kàddu ki ko xam ne nag di secretaire général bu boobule syndicat nga xam ne nag moom moo boot kat yi naka noonu itam ñoom ci seen bopp ñuy sàkku ñu dal di yëraat bu baax a baax yoronik woowule entreprise dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Sarr xam ngeen moom mooy secrétaire ba ci micro Abdou euh, Diouf Diagne wala bokk Alxassane Ba ak Ahmadou Bamba Samb. ñu ne état bi dafa bàyyee poste ak ñi nga xam ni moom moo leen fi yabal muy les directeurs généraux jafe-jafe yu ëpp yi nga xam ne moom la ñu am c'est des problèmes de gestion moom moo ñu yóbbu ci situation bi ñu nekkoon waaye gis nañu ne loolu aussi jógewu fi tey jii travailleurs yi wone nañu ko ñi ñuy teg ci bopp bi dañ leen di bàyyi duñ leen contrôler depuis 15 ans amul audit à la poste ba tax kuñ fi teg nga yaakaar ni yaa ko moom yow ak say ñoñ yaa ko moom pour gën a defar sa base politique yaa ko moom pour mën a ut say xarit ak say kii di leen di jox ay mbir yoo xam ni tey jii nii dafay delloo ginnaaw kër gi donc jot na jot na jot na ñu changer affaire yooyu yëpp jéem a fexe assainir xam nga la gouvernance opérer des ruptures Alxasan Ba ak Amadou Ba ñoom ñoo euh, taataan yooyu les euh, kaddu ñu wax ci leen ni euh, liggéeykat di ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee ca ICS nag ñoom ñooñu nag xam ngeen ne ni ki démb ci benn fan ci weeru ma di bés yi nga xam ne moom lañ ñaa leen liggéeykat yi ñoom ñooñu nag daal nañ ci amal ab prox ndoll wax jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund ca woowule kër ñoom ñooñu tam ñuy sàkku ñu ñoŋal bu baax baax li nga xam ne moom moo di salaire yi ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Wade di maire ngay Ngaye nekkoon fi fonctionnaire ci banque africaine de développement génne ab livre bu bees bu mu duppee banque africaine de développement ay coppite ci wàllu gouvernance ak ndëgg sërëx yi nekk ci wàllu xeex du élément bi nga xam ne moom lañ leen bëgg euh, jox euh, mu di ICS nag liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo euh, fa nekk ñoom ñooñu nag tiit la ñu def ci seen ak ëllëg ni ki démb benn fan ci weeru mai amal nañ ci ab prox ndoll ngir daal di wax ci li nga xam ne moom moo di seen i ay jafe-jafe bokk na ci rek ñu daal di ñoŋal seen i ay salaire daañ ci dikkaat nu mu gën yaatoo ñu wutali foofee nga xam ne moom moo di ca podoor foofee nag ndaw ñi bëgg nañ sëgg bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllub xëyub ndaw ñi naka noonu itam li ñu xamle moom moo di am nañu suuf am nañu ndox euh, ba tax nag ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen war a dimbali ñu di ay cëslaay ci woowule gox ñu daal di leen di euh, dimbali Ousseynou Diop ak Habib Seck ci reportage. bëgg dindi ndóol ci seen ndaje bi ñoom alliance pour le développement et l'alliance de Podor daan nañuy waxtaane ci seen ëllëg nan nañuy fexe ba gox bi ñu mën ko soqali fexe jafe-jafe yi askan yi di dund ñu a taxaw. taxaw leen pour euh, ñu gën suqali ko. ndaje bi ñu ko doon amal ca Gamadi Saare waxtaan nan ci lu jëm ci wàllu frontière Sénégal ak Mauritanie bi nga xamante ni bañ ko tëjee yàgg na ñuy nag loolu war na tax ñu gën a ñoŋal lu jëm ci liggéey bi fexe xale yi am xëy ci diwaan bi. sur les deux cent quarante mille hectares qui existent. département bu Podor li mu am bëri na ci ñaari téeméer ak ñeent fukki hectares yi nga xamante ni daal am na ko téeméer ak ñeent fukki yëpp ci département bi la nekk kon soqale kon ngir mën ko soqali jàppale ndaw ñi mbay mi kon war nañ ci ah, gën a dugal suñu loxo. on a des ressources aussi département bu Podor ñu gis ni téeméer ak ñeent fukki ectare mu ngi fii ngir ñu mën ko bay ñoom nag nee nañu loolu ay potentialité la yoo xamante ni buñ ci sukkandikoo mbay mi dina gën a mën a ñoŋ xale yi itam am liggéey toog ci réew mi. mën nañu nekk fi parce que li ñuy wax toog tekk fi loolu am la te ñun dañ ko gëm ñun waa alliance pour le développement euh, et l' émergence du du département de Podor dañ ko gëm ndax fii nii li fi nekk si suuf xale yi buñ leen financé. ndaw jigéen ñi bu ñu leen financé former leen soxlawuñu wuti leneen. ndaje bii alliance pour le développement et l' émergence de podoor daal nañ koy amal seen ndaw yi nag jóge nañ fu nekk ci gox goxaat yi. jamono jii li leen gën a soxal mooy gox bi gën a soqaliku tax sax ñuy rafetlu nguur gi jéego yi nga xamante ni def na ko. jërëjëf euh, Ousseynou euh, cant ak ngërëm ñeel na la mbokki maa ngi leen ko doon wax ci la jotaayu xibaar daañu dalal ki nga xam ne moom moo di euh, Ibrahima cherge Malou moom mooy directeur bu financement ak itam partenariat ca ministère de l' agriculture ak itam équipement rural maa ngi lay nuyu Serge. sant. jërëjëf gis nga ko ci élément bi nga xam ne moom la ñu mujjee teg ñuy wax euh, ci wàllu euh, mbay mu mel ni itam am nga ci pàcc woo xamante ni yaa ngi koy def ca ministère bi nga xam ne moom la ñu euh, dénk wàll wi ngeen bootu ci lépp lu ñeel wàllu financement bi est-ce nga mën nga dikkaat ci anam wi nga xam ne moom ngeen koy doxalee. waaw di la sant rek di la nuyu di la sant Cheikh Diop di nuyu aussi ensemble équipe bi yëpp nekk ci ginnaaw ah di nuyu kilifa tele bi di nuyu aussi. Euh, téléspectateurs yëpp. Euh, li may wax rek mooy euh, daanaka waxtu bi ñu nekk nii ci réew bi fi mu toll nii daanaka xëyu ndaw yi la ñuy wax. donc xëy ndaw yi aussi mënuñu ko wax te waxuñu agriculture parce que mba mbay mooy principal mooy li njëkk daal ci li nga xam ne moom mooy jël xëy yu bari xëy ndaw yu bari te bu ñu xoolee depuis année quatre-vingt yi marqué par les politiques d'ajustement structurel xëy ndaw yi dafa xawoon metti dafa xawoon metti bu baax a baax ba président Wade defoon na ci ay jéego ah, teg na fii ay instrument comme fonds euh, comme FNPJ ci ci woon ci régime am mais dañu seetlu ne Macky Sall président Macky ba mu ñëwee ci réew mi depuis 2012 teg na fi ay instruments yu bari comme Prodac comme fonds FONGIP comme fonds FONSIS yooyu yëpp pour mën a ñoŋal. ñoŋal xëyu ndaw bi looloo indi aussi ci wàllu agriculture vraiment mu doon euh, comme ni ma ko waxee sànq principal euh, moteur u dëgg-dëgg pour xëyu ndaw yi tey bu ñu gisee am na Prodac boo xam ne teg na ko fi pour les jeunes teg na aussi d'autres instruments boo xoolee ñun au ministère de l'agriculture l'équipement rural am nañ benn fonds bu ñuy wax PIESA le fonds d'intensification et de soutenance de soutenance agricole fonds la boo xam ne tey mi ngi toll ci 6 milliards te fonds boobu juste pour encadrer ndaw yi ñu mën a euh, wax dëgg yàlla am am ay xëy am na benn beneen font aussi bu ñu wax Proval VC ak Agri Jeunes de 54 milliards mais foo yëpp boo gisee euh, dañ dañ dinañ ci am ñaar dinañ ci am euh, xëyu ndaw yi mais également dinañ ci am Euh, base productive bi maanaam la production dina yokk bu baax a baax a baax a baax parce que bu ñu xoolee jéego yu ñu def ci agriculture de 2012 à maintenant le président Macky Sall on a battu sous son régime des records et des contre-records par exemple gerte bi ñuy wax. gerte bi jóge nañ ci production wu 1 million 400 mille ton tey ñu ngi ci. da daaw 1 million 400 mille tonnes ren ñu ngi ci 1 million 800 mille tonnes. Mm. daawati daaw aussi ci ceeb ñu ngi woon ci un million. Euh, cent quinze mille tonnes ren ñu ngi ci un million quatre cent mille mën naa ko toppante toppante noonu ba dix-huit filières yëpp jeex tey boo gisee tey gerte bi wàllu gerte bi mu am euh, coow lu bari c'est parce que acteurs yi daaw ANSD dafa ne baykat yi daanañ ko dugal nañ seen gafa cent onze milliards 111 milliards yoo xam ne demul ci gafa état dafa dem ci gafa baykat yi ça veut dire que agriculture dugal nañ ci ay investissement yoo xam ne moo tax euh, record yi moo tax daanaka la ñu la ñu bay mën a bari mën a bari loolu te tey boo xoolee ci financement yi am na ci matériel agricole le matériel lourd mooy matériel agricole yi nga xam ne dafa diis da ko subventionné à hauteur de que 60 à 80 pour cent le matériel léger à hauteur de 40 pour cent ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui le euh, euh, kii nga xam ne mooy njiitu réew mi xam na ne bu baax a baax a baax a baax a baax tey dëkk bi bu ñu bëggee mu mu mu dox il faut ñu dooleel agriculture mm-hmm. parce que bu ñu ba ñu demee ci covid bi covid bi dafa ñëw économie Sénégal. Mhm. Sénégal dem ba tollu ci moins. 0.7 la dem de croissance avec la Covid il a fallu mhm. euh, ci campagne bi nga xam ne moom lañ dem campagne bi euh, président dugal ci 60 milliards ba mu ci dugalee 60 milliards ak jumtuwaay ak stratégie moo ñu permettre tey taux de croissance bi nekk 1.9 mhm. léegi nag li ci am mooy ñu wax xëy ndaw yi te xalaatuñu agriculture parce que mbay rek moo mën a jël lu bari yi nga xam ne activité parce que boo xoolee tey soixante dix pour cent de la population sont jeunes. Mhm. ay ndaw lañ. Mhm. te euh, te bay il faut mu am ay ndaw yu am kàttan am doole mën ko def mag mënta bay. Mhm. donc xale yi tey il faut que ñu tegal leen ay cadres yoo xam ne. adéquat ñu mën a dem ci suuf yi mën a bay état accompagner leen. ci loolu ci loolu yéen yeneen stratégie ngeen teg. pour mën a euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ndax itam boo gisee koo xamante ni jàng na ba am yenn lijaasa yi tey amaana mën na ne man duma ma bay parce que waruma bay et am naa sama ay diplôme yéen lan ngeen teg pour mën a dox ci xelu ndaw ñi wala boo ko jëm leen a yedd pour que ñu mën a dem ci ci ci. pour man communication la. lu ci bari aussi may nangu ne ñun daanaka. Euh, service état yi dañoo manqué communication juste avec les acteurs tey ñun lu ñu teg ci jumtuwaay yi wax naa la les différents programmes yi fi nekk tey tey leer aussi il faut mu leer ci bopp nit ñi mooy amul benn business boo xam ne maanaam jënd ak jaay walla def affaire yoo xam ne mën nga am mën nga mën nga investir benn am ñett y a dans le secteur agricole maanaam mbay rek moo la mën a permettre tey nga mën a am bénéfice bu war te loolu aussi il faut que il faudrait que comme ni ma ko defee nii yeneen services yi aussi mën ko def mën a communiquer. xëcc ndaw yi parce que le programme. Euh, le programme d'urgence bi nga xam ne le chef de l'État def na ko le 22. bi mu jógee ci conseil présidentiel bi. Mhm. chiffré ko à quatre cent cinquante milliards. Mhm. boo xam ne dafa réorienter le budget euh, pour mën a dugal loxoom ci xëy ndaw yi. Mhm. mais les quatre cent cinquante milliards loolu. pour accompagner le financement des jeunes. à travers des projets innovants. Mm -hmm. comme projet yi nga xam ne ñu ngi ci agriculture wala yeneen. te loolu pour man. xam nga agriculture balaa muy nekk yëfu business. yëfu xam-xam la et on a euh, dañu yor au niveau du ministère de l' agriculture l' équipement rural ay ndaw yoo xam ne wala ay ay borom xam-xam yoo xam ne bu ndaw ñëwee danañ la tàggat. formation bi waaw surtout formation. formation bi aussi c' est très important parce que tey euh, du ma xëy suba suba suba ma ne damay dem bay te xaw ma fan laa war a bay ak nan laa war a mën a def ba mu meññ. mais loolu laa lay wax xam nga tey euh, avant muy nekk wax naa la avant muy nekk waxu business. l'agriculture est quand même une affaire de science xam-xam la donc boo ko xamul mënoo ko def mën nga nërmelu ci investissement bi donc man dama bokk ci nga xam ne gëmuma ne nit wala ndaw mën nga jël ay financement jox ko te formé woo ko formation mooy première éducation boo xam ne vers l'emploi ay fonds yi nga xam ne ñi ngi koy def jël di xaalis di ko passer passer ci ci ci ndaw yi mais du am impact il faut un encadrement solide une formation avant nit ki di dugg di am entreprendre mhm. l' entrepreneuriat sans formation c' est voué à l' ñëwaat voilà daañu ñëwaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi dañuy des ak gan gi waaye tam wéyal li nga xam ne euh, moom moo di euh, xibaar yi xam ngeen ne Covid 19 laal na fépp ci at na wërngal këpp waaye fii nga xam ne euh, moom moo di ci tundu Afrique yi tam mën nañoo def kéem kattan ndax itam li ñu jot a loru ci jàngoroy coronavirus ñu def xool nees mën a def ba mën ko dabu jaarale ko ci ay vaccin euh, du euh, samay kàddu nag ki ko xamle di Maguette Wade xam ngeen ne euh, fonctionnaire la woon ca BAD jamono yi nag moom mooy maire bu Ngaye mexee ginnaaw itam après téere woo xamante nii daal na koy jukki wax ci noo xamante ni nees mënu ko def ba rek moytu yenn ci ay ndëggu sërëx yoo xamante nii dinañu mën a jëmale ci ak ndool Cheikh Anta Diop ak Seylatiex Zakir Wade di maire ngay Ngaye nekkoon fi fonctionnaire ci banque africaine de développement génne ab livre bu bees bu mu duppee banque africaine de développement ay coppite ci wàllu gouvernance ak ndëgg sërëx yi nekk ci wàllu xeex wàllu ndool dama liggéey ci fu ñuy wax banque africaine de développement lu war a mat ñaar fukki ak ñaar ci niveau yu bari nag ñu dem ba deux mille vingt muy presque lu ëpp soixante ans. ñu nekkaat ci di tourner fi nekkoon te diggante bi tijjil nañ fi banque bi dëkk yi nga xam ni ñooy pays yi nga xam duñu pays africain ñu ñëw dugg pour ñu gën a dooleel banque bi mais xool nañ ni ban duggee itam li nga xam ni lan dugal li ci ëpp it dañ koy jëlaat ndax euh, biens yi bu ñu lancé appel d'offre Afrique amul industrie buy produire dara loo xam ne ñu ko sonn Afrique defarul ay ordinateur defarul ay ay caméra lu ci bari dañ koy jënd ci ñoom ñoo koy gañ muy ay Chine ay Turquie et bu fekkee dañoo bëgg a dindi ndóol bëgg a développer pays yi ni ñu yore banque bi il faut ñu yore ko taxawaayu africain bu mat sëkk am fayda ju mat sëkk am courage bu mat sëkk. fexe nag ba teguwaat ci raay bi ngir Afrique suqaliku ndaw ñi amam xëy loolee la ñu war a def. africain yi gouvernants yi experts yi fokk ñu wax ci ci feebar yi am nii itam banque bi mënoon na. ni ah ñun kat dañoo bëgg vaccin boo xam ne ku nekk ngi def sa vaccin ci sa continent ñu def vaccin boo xam ne Afrique ko moom. di ab livre boo xamante ni génn na ci édition L'Harmattan bu Paris maire Ngaye Mekhe di Maguette Wade nag doon def lancement bi fii ci Ngaye jërëjëf euh, euh, Cheikh Anta Diop ñu dellu siwaat ci ki nga xam ne moom moo di euh, suñu gan wax ci financement yi nan ngeen koy tëralee ginnaaw itam bu ngeen amalee li nga xam ne moom moo di formation bi ba noppi ndax itam ndax ndaw bi day ñëw ne leen dama soxla temps ci ay koppar ngeen jox ko wala nan lay demee financement bi. ni muy deme mooy xam nga ñun au niveau du ministère de l' agriculture et rural. Mhm. mooy bërëb bi nga xam ne foofu la ñuy. Euh, maanaam saytoo. Mhm. lépp lu dem ci agriculture am nañ ANIDA agence nationale pour l'insertion le développement agricole ay ferme la yoo xam ne daanaka ndaw bi nga xam ne dafa bëgg a investir ci wàllu mbay. Mhm. bu ñëwee ministère ba noppi lu ñu koy njëkk laaj. Mhm. mooy il faut avoir un projet. te projet mooy maanaam nga nga tënk la nga bëgg a def ci kayit boo ko mënul def ay techniciens jàppale la de sorte que nga tënk ko. nga defar ko boo ko defaree ba pare. ñu orienté la xool nañuy def ak yow. tey dama lay jox benn exemple bi nga xam ne mooy le fonds cowéchien bi nga xam dañ ko bokk ak yeneen yeneen i kuréel yeneen i secteur comme le secteur de l'élevage ak yooyu dañ koy def nga xam ne mën nañu financer ba vingt cinq millions ay femmes yi nga xam ne ñi ngi ci liggéey dans la transformation. ak mbayum dër mi. ak mbayum dër bi parce que ki di c'est dans la sécurité alimentaire. et booy wax sécurité alimentaire yaa ngi wax mbay yaa ngi wax càmb yaa ngi wax euh, euh, napp yaa ngi wax yeneen yaa nga xam day permettre nit ki euh, mën a mën a mën a bay li muy dundee. Mm-hmm. donc loolu boo ko defee même projet bu baaxul on a des techniciens qui qualifiés. Mm-hmm. yoo xam ne dinañu jël sa projet danañ ko saytu danañ la dimbale danañ benn banque boo xam ne dana la accompagne léeg-léeg nag ñu am ci njàkkare comme tout parce que calamité naturelle day am des fois di nga investir dans le domaine agricole taw bi bari wala taw bi néew yàqu-yàqu yooyu. boobaa nan ngeen lan mooy nekk seen taxawaay. waaw boobaa taxawaay bi comme ni may wax rek ñun dañu fi nekk pour le service public. Mm-hmm. service public mooy maanaam accompagner ndaw bi bi nga xam ne parce que nee naa la ñaar lañu am. ñaari defi defi emplois des jeunes ak le surtout le défi d'augmenter la production parce que euh, euh Covid bi ñu jëm ni dafa wane ne carrément suñu dëkk yi dañu war a gën a liggéey. dañu war a gën a liggéey pour bay li nga xam ne moom la ñuy dundee. ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire te ci souveraineté alimentaire boobu bi ñu gisee Sénégal autosuffisant na en pomme de terre ak oignon. mais yeneen yi comme ceeb du ak euh, pomme de ak ceeb ak euh, yeneen jumtuwaay yi. yeneen yi nga xam ne mooy ferñeent yi. Sénégal autosuffisant wu ci. moo tax boo xoolee dans le PAP 2 accéléré ajusté yi nga xam ne mooy programme référentiel bi tey. le président dafa instruire le ministre de agriculture ñu travailler ci benn programme de souveraineté alimentaire nga xam ne Sénégal dina bay li nga xam ne moom la ñuy dunde mais bay li nga xam ne loolu la ñuy dunde ñan ñoo ko mën a def mais mën ndaw yi. parce que comme li ma la sànq ay mag mënuñoo bay. bay juróom benn bii la soxla. bay dafa soxla naaj. dafa soxla ndox. dafa soxla ay ay ndaw yu am kattan mën koo bay dafa soxla suuf mais aussi dafa soxla jiw yooyu yëpp ñu ko boolee mooy indi agriculture ñu des ñu des ci euh, ci suuf si parce que tam bëri na ay baykat yoo xamante ni wala ay ndaw yoo xamante nii bëgg nañoo bay waaye ñu am li nga xam ne moom moo di suuf jafe-jafe la waaw suuf nag wax dëgg yàlla xam nga suuf tey Sénégal dafa doon benn compétence boo xam ne transfert la mm-hmm. parce que boo xoolee tey collectivité locale yi collectivité locale yi ñoo yor tey dans le cadre de la territorialisation. ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne seen seen collectivité suuf yi fa nekk ñoom ñoo ko yor. loolu nag mu mën cee d'accord ak yow moo je pense que le chef de l'État wax na ko récemment le problème foncier. commencé woon nañ entamé na woon boobu moom moo ouvriroon benn collectif pour ñu réfléchir sur le foncier au Sénégal mais bañ demee ba ci biir moom ci boppam nee na moo ko bloqué woon mais foofu may d'accord ak yow parce que mënuñu bay sans pour autant ñu joxe suuf si. donc collectivités locales yi maires yi nekk ci différentes communes yi wax mhm. dëgg yàlla nu ñu accompagner état bi dans la la la la la production et dans la dans la recherche de l'emploi ci ci bay bi ñu mën a jox nit ñi ay suuf ñu mën a bay mhm. ñu desandi ci coowal suuf loolee nag collectivité yu notable lébu yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu euh, Tëngéej ñoom ñooñee nag euh, ñuy sàkku ci euh, ndaw ñi nag ñu mën a des dekk loolu nga xam ne moom moo di ci suuf di coowal suuf ndax itam mën nañ jàpp ne lu mel bu ñu ko moyoo ndaw ñi mën nañoo am xëy sa bés bu yàlla sàkk nag bu ñu xëyee am foo xamante ni dees ma dafa dem ngir rek daal di daan seen ak euh, doole dañuy teewlu Mamadou euh, Diop Thioune moom nag kenn la euh, ci ñooñu ci micro Abdou Diouf Diagne. waaw ku yàbbar Sénégal rek war a am kersa ak fàttaliku ci ne ay kàngam yu fi yàlla tegoon ku mel ni Bator ñuy rafetlu taxawaayam ci li nga xam ne mooy jël suuf sos yu naatal ko jëloon juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti famille ñuy daan seen doole ak bët Sénégal. ñu wax ne bët Sénégal bu ki Sall demee taxaw jam ñaago ne utal xale yi liggéey. waruñ ko okk ne ko Macky fi nga taxaw mooy bët Sénégal que ba Sénégal en 1974 fukki junni ak ñeent ci tonn la daan yóbbu te daan na jël juróomi téeméeri nit yoo xam ne ay boromi kër ak juróom-ñett ak ñeent fukk ak juróom-ñett fa ñuy xëy di daan seen doole bés bu nekk Sénégal gépp xam ko Afrique xam ko àddina bi xam ko ngoon nag bu fekkee ne yi dafay andi mbay na ko tàmbalee jam ñaajo wàllu mbay moomee nag ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañ ñu gën koo ñoŋal fii ci réew bu euh, Sénégal waaye itam yokk payeeruk ñi nga xam ne nag ay àlla traite lañ ñu ni mel euh, confédération démocratique ak itam syndicat libre du euh, Sénégal ñoom ñoo ko yëkkati di ay jafe-jafe yoo xamante ni nag bu ñu sañoon dañ koy rek du mooy ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo si secrétaire général ba di Ibrahima Sarr ci micro Alxasan Ba ndaw ñi nag di tàmbali seen i activité gu njëkk andi seen ndimbal ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy détenu yu fi nekk fii ci camp pénal. on a décidé de euh, jafe-jafe la ñu am ci wàllu euh, technique bi daañ ci euh, ñëwaat nu mu gën a yaatoo wala boo ko ñu digtal leen élément bi. mu leen dundal naam sax président mu ngi jàppale xale yi pour ñu mun a liggéey mais du alal traité yëpp ñoo am doom ñoo am xale ñu mun a liggéey. am na ñoo xam ne dañu dem ba màggat du ñu am doom yàlla du leen wërsëgal doom yu muy la liggéey mais ñooñu it war nañu leen gëstu gëstu ñëpp pour ñu mun a am lu ñu dundee euh, waxtaan lañu aussi euh, ci lu jëm ci gardien gardien ak agent sécurité maanaam boo seetloo ñun dañu fanaan nelaw di noppalu am ñi fanaan di wee di di ñu xoolal suñu bopp ak suñu alal ñooñu nag waruñu leen waruñu ndóol ñu nekk yoo xam ne ñu leen pay payor bu baaxul ñu nekk ci bâtiment maanaam ñi tabax ñooñu tam boo seetloo euh, ni leen di liggéeyloo surtout entreprise chinoise yi ñëw fii ñu jox leen marché bu rëy ñuy liggéeyloo nit nit ñi ñoo gën a yées ñoo gën a arrière boo seetloo sax li xew ci usine Karo bi nekk si Sindia nga xam ne euh, secteur bâtiment dafa ndóol dafa am problème problème yu bari mbokk yi ñu ñëwaat ci euh, suñu gan chargé bëggoon nañ gën a yaatal waxtaan wi waaye mel ni waxtu wi moom moo ñu euh, tënk lan ngay digal ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo di ndaw ñi jëmale ci wàllu mbay. waaw li may li may terminer rek mooy di la sant di wax ne le président de la république. Mhm. ci conseil présidentiel li mu wax leer na teg na fi benn programme d'urgence. Mhm. et et pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Mhm. programme bi nga xam ne mooy 450 milliards. mooy xëyu ndaw ñi léegi li ñu war a def mooy ndaw yi nañu rapproché wu ci ministère yi comme ministère de l'agriculture le ministère de la formation professionnelle ñu am ay am nañu ay techniciens yi nga xam ne ñi ngi foofu mën leen encadrer mën leen jox ay conseils pour mën nañu am ay projet bancable xëyu ndaw ji mën ko régler mhm. surtout dans le domaine agricole voilà foofu mhm. nag laa lay remercier di remercier ñëpp di remercier également seeni téléspectateurs mhm. di leen sant di baalu ñëpp ak di la baal jërëjëf ñu lay baal ak ñu itam bu baax a baax may fàtte rek mbokk yi euh, moom mooy Ibrahima euh, Serge euh, Malon nag moom mooy directeur bu financement ak itam partenariat ca ministère bu agriculture ak itam équipement rural moom lañ doon dajale wala boog moom lañ doon waxtaanal ci lépp lu mbay ak itam xëyub ndaw ñi uh, fii ci réew bu uh, Sénégal mbokk yi xibaar woo xamante ni dab nañu léegi léegi bi ñuy uh, amal mbir mu ni mel nag di di ab jàmmaarloo diwaan bu Fatick ca Diohine ci diggante ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ak itam way takk der yi suñu ndaw mi ngi ci bu mu jokkoo bi Aminata Goudia bi maa ngi lay nuyu Aminata bu fekkee mu ngi ci euh, bu mu euh, jokkoo bi moom moo ñu baaxee boobule euh, xibaar di rek jàmmaarloo ci diggante way takk der ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak itam ndaw yu jooyi nag ci ana lan moom moo ko waral nag ba tax itam ñoom ci ab marche woo xamante ni ñu ngi ko doon def ba tax ñu bëggoon leen ko lankal mu mel ni nag loolu moo soobe boobule jàmmaarloo Aminata Goudiaby suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Fatick bu fekkee mi ngi jokkoo bi ñu dalal ko mu daldi ñuy jukki la ca gën a fës Aminata mu mel ni nag daañu euh, dikkaat ci euh, boobule euh, xibaar nu mu gën a yaatoo ñu woyal ko wax ci euh, leen du ñàkk daañ jokkoo ak moom laata rek xibaar yi euh, di euh, buur diwaan bu Fatick nag mu mel ni ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi nag jamono yi ñoom ñoo fas yéene tàggat ay ndaw yoo xamante ni nag mujj ñoo dugg école te seen i at toll ci juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak juróom nag ñoom lañ fas yéene tàggat ngir rek buñ ci noppee mën a am ci loo xamante ni dees mën a jàpp ñu teelu Xadi jaay moom mooy euh, directrice woowule euh, programme dañu teewlu ay kàddoom. école wala ay xale yoo xam ni dañu teel a génn école ñu dàq leen wala xale yoo xam ne dañu jóge ci daara yi ñooñu nag pour ñu mun leen jàngal ba tey ñu jóge ci situation bi ñu nekk dañoo wut ay jeunes yoo xam ni ñi dañu am bac ñi am tamit expérience ñu jàngal leen ci ñeent fukki fan ba bu ñu fi jógee dem mën a jàngal accompagner xale yooyu nga xam ne ñoom laa wax ci école communautaire de base xale yooyu nag dañu tam dañu am droit ci école bi maanaam bëggatuñu xale bi taxawaalu ci mbedd bi boobu ñu leen di jàngal ci école communautaire de base ci ñetti at ba ñeenti at xale yooyu dañu leen di tàggat ci seen làkk bi nga xam ne moom la ñu nàmp moom la ñuy jëkkee ñi nga xamee ni bii seen age ëpp na ko ñu daal leen organiser nàmpatal leen jàngal leen métier tàggat leen ba nga xam ne dinañ am esprit entrepreneuriat dootuñu dem di jëli ay gaal wala dootuñu jël di def ay marchand ambulant mais dañ leen di jàngal topp leen ba nga xam ne dinañ mënal seen bopp mënal seen i jaboot ñu dellu fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Fatick fekk fa suñu ndaw Aminata Goudia bi Aminata bu fekkee yaa ngi ci bu mu euh, jokko bi nga wax ñu la gën a fës ci jàmmaarloo yi nga xam ne moom moo amoon ca diggante ndaw yu euh, joyin ak itam way takk der ya ginnaaw bu ma la nuyoo Aminata Goudia bi mu mel ni euh, dégg-dégg bi nag euh, moom moo ami jafe-jafe euh, moom Aminata Goudiaby diwaan bu Fatick mu wax ñu rek jàmmaarloo yi nga xam ne moom moo fa am jamono yi bu fekkee nekkul ci buum bi ñu wéyee li nga xam ne moom moo di xibaar yi ba keroog ba rek ñu koy dab wax ci leneen mu di réseau des sami ak itam sympathisant wu Aïda Ndiong comme at bu yàlla sàkk Aminata. oui Cheikh Diop maa lay dégg. Euh, damaa damaa bëggoon euh, euh, li nga wala bokk continuer li nga xam ne moom moo di xibaar yi ndax jafe-jafe déggante lañu am ginnaaw ba ma la nuyoo. Ah, maa ngi lay dégg fii mu ne maa ngi lay dégg. jërëjëf lan lañ mën a jàpp ci jàmmaarloo yi nga xam ne moom moo fa am jamono yi ay ni nga waxee noonu la ay jàmmarloo yu metti moom moo am fi mu ne nii fii ci Diohine nekkee ci commune bu Diarra ci mhm. diggante ay ndaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk yi mhm. li ko indi nag moo di ab marche boo xam ne ndaw yi Diohine yi Diohine yi ko bëggoon a amal tey ji ci suba mhm. ngir rek jàmm ji nga xam ne moom lañ xamee woon seen dëkk boobu mu dellu siwaat mais nag euh, marche bi dafa mujjee dégénéré ndaxte daf ci am ay ndaw yoo xam ni dañu wutali woon kër ki nga xam ne moom moo di kër euh, amoon nañ yéene <laughs> uh-huh. am na Goudia bi mu mel ni dégg-dégg bi moom moo euh, neexul ñu jéemaat rek euh, jéem a jokkonte euh, jot nañ ko taal ñu fàttali rek le 11 avril bi ñu bi ñu weesu mm. ay ay jàmmarloo moo amoon ci diggante sëriñ boobu nga xam ne bi mu nekkee ci dëkk bi yàggul ak ay ndaw mm. boobu ba léegi nag ndaw yi ñoom am ci ñoo xam ne dañu décidé ne na leen amal amal dëkk bi mm. ñu bëri nag jàpp ne loolu du yoon moo tax nag tey jii gendarme yi nekkoon fi ngir jéem a tere leen lépp loo xam ne rek day jëm ci wàllu attaque jëmale ko ci sëriñ boobu affaire bi mi ngi calmé waat ndànk ndànk waaye ba léegi ndaw yi mm. dara jógewul ci seen détermination te nee ñu mm. sëriñ boobu dafa bëgg yàq seen dëkk bi indi fi loo xam ne ñoom xamuñu ko woon mm-hmm. jërëjëf Aminata du ñàkk laata euh, rek euh, loolee di jeex daa ñu toppal la nga xam ne nag moom moo fay ruusandi euh, ci ay xibaar ngir nag nga daal ñu koy jottali ñu daal di koy digtal askan wi ci yeneen i jotaay ñu wéyal xibaar yi wax ci réseau des amis ak itam sympathisant wu Aïda Ndiongue at bu yàlla sàkk ni ñu koy defee ci weeru koor yi daañu dem fa nga xam ne moom moo di ca camp dimbali ñi nga xam ne nag ñoom la caabi féete ginnaaw ci li nga xam ne nag moom moo di ay dund ak mbir mu ni xeetoo wowle xew-xew Alxasan Ba ak amadu Ba ñoom ñoo ñu fa teewaloon. seen njàppandal dañu indi topp tànk ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen i mag ci biir Razane dugg leen nag réseau des amis et sympathisants de Aïda Ndiong di def action yi ni mel ndaw ñi nag di tàmbali seen i activité ku njëkk. andi seen ndimbal ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy détenus yu fi nekk fii ci camp pénal. on a décidé de l'institutionnaliser cest chaque dire chaque allah Inch'Allah, suñ ko mënee la jeunesse du Razane va venir faire euh, des dons au niveau du camp pénal at su ko jaree prison jigéen bu nekk Thiaroye at euh, mineurs yi at fépp foo xamante ni am nay couches vulnérables ñu mën leen jàppale si action sociale lu euh, la coordinatrice nationale du Razane di def. ab geste la bi nga xamante ni administration bu camp pénal bi daal di koy rafetlu ñoom ndaw ñi sax jàpp nañ ni tànneef yi nekkul loo xamante ni da leen neex rek ndax lépp yàlla ba mu koy teg nattu bi elle a passé dix-neuf mois ici donc euh, bala ñuy def benn activité et comme on avait l'habitude de venir ici donc unanimement on a décidé notre première action en tant que euh, jeunesse du Razane de ñëw fii camp pénal def fii benn journée de don comme euh, la présidente la coordonnatrice nu mu koy wax daf ñuy jàngal le partage Euh, la solidarité ba pare la générosité nit ki yàlla su la mayee dara na am tuuti as tuut jéemal jàppale ñoo xamante ni ils ont ils sont dans des difficultés. razan jaare ko ci ndawam yi fas yéene wéyal action yi ni mel nag yaatal ko ci yeneen établissement pénitentiaire yi ñuy joxe rendez-vous ci lu yàggul dara ci ay action yi ni mel. Alxasan Ba ñeneen ñoo xamante ni nag ñu ngi wëyal ay action di ay ndaw xam ngeen ne koor bu jot nag dañuy faral di nekk ci li nga xam ne moom moo di xàll yi di séddale ay ndogu ci ñi nga xam ne waxtu ndogu da leen di fekk ci yoon wi suñu ay ndaw dem daje ak ñoom fu ci mel ni ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ak itam ca Hann Bel-Air Ibou yu su Baro ak Abdoulaye Diallo ñoom ñooñu ñu teewal yooyu lee séddale ndogu ñu seetaan reportage. ñii ñoo ngi ko defee xale yi di yëngu ci wàllu politique. fële ci université tamit am yeneen ndaw yu jóg ngir bokk ak askan wi li ñu moom. li leen tax a jóg mooy taxaw ñi nga xamante ni ñooy warkat yi nga xam ne ndogu da leen di fekk ci kaw yoon wi tàmm nañ heure bi bu jotee ñu wàcc koñ bi saafarte koñ bi bokk ak ñoom li ñu am. Sénégal benn bopp la yàgg nañ koo wax. kenn mënu ko xar ñaar kon ñu fi fekkoon suñ maam yi di fi def muy rafetal bu ñëwee nañ rafetal ànd lépp bokkoo boo amee sa cent francs ma am sama 200 ñu ñëw bokkoo. dinañ dugg ci quartier yi dinañ dem ci jàkka yi fépp fu mënti nit mënti nekk rek nañ dem àgg ba ci moom li ñu am li ñu yàlla dénk ñu séddee koog moom. daanaka jëfin bi benn la ku ci nekk andi ci la nga moom ñu dajale ko. ngir jagleel ko askan bi ñun suñu biir ku ci nekk aslëf li nga am ngay jël boole mu doon lu bëri loolu la ñuy tey séddoo suñu waa commune tey ndaxte lii dafa am solo bu ñuy def lu baax ñu koy génnee ndaxte dëkk bi am na ñoo xam ne ñu ngi yor loolu ak loolu te séntu wu ñu seen ginnaaw. au de la commune de Pastef Hann Bel-Air c'est la première édition mais bu ñu ko jëlee au niveau départemental c'est ya y a édition yoo xamante ne def nañ ko. jamonoy koor dañuy faral di gis ñuy taxawu askan bi bu baax a baax loolu ndaw yi def. ngir jamonoy koor gi ñu def kem kàttan ngir gën a taxawu seeni ñooñ jërëjëf eh, Ibou Diouf ñu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu eh, tàggat yaram wàllu athlétisme nag eh, championnat régionaux yi ni ki démb itam ñu ngi doon rek daje fa nga xam ne moom moo di ca stade Léopold Sédar Senghor mu ñeel tout tànk yi nag ñu ngi doon jongante foofe mu mel ni nag union pour la promotion d' athlétisme de l' athlétisme nag jamono yi nag bëgg a wéyal bu baax a baax boobule discipline waaye itam daal di ci gunge bu baax a baax ñi nga xam ne sopp nañ wàllu athlète athlète Cheikh Sadbou Diarra ak Ba. yu jigéen ak yu góor yu athlétisme bu Dakar jongante nañu. ñu bëri ràññeeku ci def ay performance ba noppi am yéene tekki ci. force moom ça m'étonne pas parce que à chaque compétition je m'en sors très bien mais kontaan naa la bëgg naa dem nag a mel ni kon ay Usain Bolt ay Amadou Diaba du genre. lu raw lii saa maa ngi ñaan yàlla lu raw lii na ma ko may billaay. ciy liggéey. billaay maa ngi ciy liggéey dëgg dëgg nag maa ngi ciy liggéey parce que saltige laa ne. mën naa def lu raw lii. maanaam damaa bëgg nekk champion du monde ñëpp xam man maay kan. ñi yàggoon def jaloore ci athlétisme bi teewe ko ànd ak yaakaar bu takku. ci gone yi. ancien athlète bu ñu mën xam muy extérieur parce que diaspora bi tamit dañuy joué lu rôle bu bari ñoom tamit dinañ leen gën a euh, ñaax pour ñuy gën a jàppale. pour euh, affaire yi jëm jëm kanam daal ñu am ay champion yu bari parce que fii ngay gis ni ay Ami Mbacké fi fiy nelaw ah ay Kendo ñu ngi fiy nelaw ay Cheikh Touré ñu ngi fiy nelaw ah mais il faut ñu jàppale leen te ñun si loolu la ñu jóg parce que dund nañ ko moo tax ñu ñu koy ñu koy def di rafetlu. ñi ngànk athlétisme bu Sénégal itam am gis-gis ni tàggat yaram bi mu ngi dundaat. boo ñëwee gis xale yi nu ñu nu compétition mel ak nu ñu ñëw bëree nga xam ne euh, athlétisme am na avenir ndax ñii ci lañ yaakaar pour que ñu assurer relève bi boo ñëwee gis ne club yi yëpp ñëw nañu am nañu athlète yu bari ñu ngi compétir IPSAS mu ngi jàppale indi nañu ay loo pour jàppale xale yi ay loo de consolation donc. Euh, ça veut dire que euh, la relève sera assurée. ginnaaw ay ati at yu mu sooxe woon athlétisme bu senegal mu ngi def ay jéego ngir dellu fi mu nekkoon di ko jaaree nag ci gone yi. jërëjëf Cheikh Sadbou Diarra mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di buural wile jotaay yu xibaar dig daje ngoon incha allah dinaa fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaama ko ci lu mooy loolee tam mooy leen di des ak programme télévision Futur Média jaa jëf mbokki yi kenn dal ak jàmm.